nuñ ko baaxoo defee ci waajal mbalem daaru xuddoos ci ndigalu sëriñ ahmadou muxtaar mi nga xam ne moo fi nekkal cheikh mahamadou moustapha bu ñëwee sëriñ ahmadou muxtaar nag ni guy mbind bu ñëwee guy mbind ni daaru xuddoos kon jataay bii ak woote bi ci ndigalu sëriñ ahmadou muxtaar ak mbooleem jabootu guy mbind gépp lañ koy woote bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal nag mooy bisu màggu daaru xuddoos doon le 6 août ci weeru tubaab waroon ñaar fukki fan ci weeru muharram bii di ñëw nii ñoo ngi leen di soññi ñëpp kenn ku ci nekk mu bàyyi ko xel ndax bis bi kat ni leen ko waxee mooy bis la boo xam ni Cheikh Mamadou Sa mi ko santaane wan li tax mu santaane ko mooy gàttandu ci gan ñi waaye itam bàyyi xel bàyyi xel gum gum bàyyi xel ñi nga xam ni ba sëriñ bi di ñëw fii ci dëkk bi ñoo ko gunge si mooy waa jundulaay waa malaayka muharrabini waa ahlu badar ñëpp ku gunge si woon ci Cheikh Moussa waxoon na ni bu bés bi dellu see ñoom ñëpp danañ dellu siwaat fii fanaanandoo fi ak moom ba bët set ñu delluwaat kon Cheikh Moussa taxoon Cheikh noon ñoo ñu nag nañ leen waajal ci ak cet ndax bu ñëwee fa ñuy toog ak nañ fi nekkee ñoom rek ñoo koy xam moo taxoon Cheikh Moussa soññe woon mbale mi loolu nag moo tax ñu fës yéene ànd ak ñi nga xamante bi ni ñoom lañ leen di bëgg a limal nii noo leen di nuyu ci turu sëriñ Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne nii moo jiite njabootug sëñ Modou Moussa gépp di leen nuyu ci turu sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ni moo jiite diwaanul Mouridina ak ci turu sëñ la Abdoulahat Mbacke moom sëñ Aliou mu jiite commission sociale ci diwaanul Mouridina ak ci turu sëñ Cheikh Ndiaye mi nga xam ni moo jiite mboole mbale mi ndek chef de village Darou Khoudoss ñu ngi leen nuy ci turu ñooñu di leen jottali ay kàddu yu bàyyikoo ci ñoom ñooñu ñëpp mu di a ah, lii nga xam ne nii at mu jot ñu di ko def muy seet seetal bi nga xam ni fas nañ ko yéenee def ren ji ci màggalug daaru xuddoos gi ci màggalug isriina ma xaram gi ñuy waajal mbale moomu nag ñi ngi koy def le premier di talaata fii ci daaru xuddoos ak ci Touba gépp ñi ko yëgal nag mboolem kuréel yi nga xam ni nii bokk nañ ci ah Daaru Xuddus yëpp ak daayirab seex yi nga xam ne nii sëñ Mbàkke Gay Ngàcc ñoom ñëpp ñi ngi leen di woo di leen fàttali ku ne xam na ni mbale mi ñu ci bari dégg nañ liñ ciy wax sëñ Modou Moussa ci boppam moo ko digle woon di ko def dëkk koo defal boppam. di woote nag kilifa yi nga xam ni ñoo ëmb Daaru Xuddus ku ko buñ koy wax nag mooy danga naa waa kër sëñ Daaru Assane Ndiaye di wagaar Seex Ibra Fall waa kër sëñ Madiba Silla ak. waa kër rijaal ak seex sépp mboolem ñi aju ci ñi nga xam ne ñoom la sëñ Moustapha Gaye daa soññi ci bis bii kat ci lañ amee woon liñ bëgg teyit nan ko daa sàmmee ba léegi danoo fekkan mag ñi di ko sàmm sëñ Seex Njaay mii nag moom la fi yàlla teg mu jiite lépp woo ñëpp délégué de quartier yi nga xam ne ni aju nañ ci Daaru Xuddoos ñëpp ñu ngi leen di woo bàyyiwuñu benn délégué fukki délégué quartier yeeg ñaar jëru ñuy tudd seen xam nañ ko ñoom ñëpp bale mi nañ soññi seen mbooloo ca bis baa ñoom ñëpp ñu ñëw mbootaay yi jigéen ñi mbootaay yi seet seetal yi ñi ci Touba ak li ko wër lépp ñu ngi leen di soññ loolu daal mooy li nga xam ne ni moom lañ waroon a wax ci turu sëñ Cheikh Ndiaye asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ Ibrahima kon li nga wax toirkal rafet na lim nga ñëpp. waaye nag ñi mat tudd tudd nga leen kon nag ci gàttal ci ndigalu sëñ Ahmadou Mokhtar jaare ci sëñ Ousmane Mbakke jaar ci sëñ Cheikh Ndiaye ba ak ci nun ñi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Cheikh di ko jàppale ci liggéey bi muy wàllu collecte bi li nga xam ne lii moom la ñu jëme ci gaasuwaal yi yëf yi kon nun noo ngi waxee foofu soññi képp koo xam gi agsee guñ ci yow ci wàllug la nga ci man ci jàppale ci liggéey bi ndax liggéey bi kat nu ci waa jàppe rek noonu nga ci feeñ te liggéey la boo xam ne bii yàggas na ko wax dañ koy wax di ko waxaat fii nag ndax fàttali moom dafa baax ci lu mu doon fàtte sax amu fi waa nag dañuy jéem a yeesalaat ngir bëgg Pastef yi di gën di yokk bu baax a baax a baax képp ku ci yegg si ci yow mbaa kuñ yegsee gut ci yow rek xam nga la la ci war na nga ci góorgóorlu ba bu ñu yegsee ci yow nga def ko mbaa bala ñu yegg si yow sax nga def ko ndax yoonu it moom noonu lay doxe kenn ku ci nekk la nga yëg muy lu baax loo daan def waxtu wuy ñëw balaa yegg si fekk na waajal nga ko bu baax a baax kon nag ñu ngi woo ñëpp seex si tudd nañ leen tudd nañu taalibe yi tudd nañu euh, kuréel yëpp bàyyiwuñu benn kuréel moo xam daayira moo xam kuréel bu mu mën di doon woo nañ la ci liggéey bii ndax liggéeyub seex Moustapha la boo xam ne bii daa dox rek ci noonu ci noonu kon nag bu nu sañoon dañu koy ànd ak ñëpp noo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu góor jigéen mag ndaw bàyyiwuñu kenn na ñëpp ñëw nu ànd liggéey liggéey bi ne ko sëriñ bi bëggee. ndax nu làq ci ngërëmul sëñ bi yàlla na ko yàlla may asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci li ñuy woote mooy dañuy bale di tonni mbalit euh, koo kuy bale nag danga xam ne la lay tax mbalit ma mën a dem da nga am ay oto oto yi ñu ngi sàkk bu baax ñi nga xam ne ñoo ko daa joxe di ko able wala ñu di ko joxe ñu liggéey liggéey bi ñu ngi leen koy fàttali bu baax képp ku ci am oto boo xam ne dana mën a ñëw ci bisub talaata boobu ñu bale mbale mi. nañ dimbali loola agsi euh, muy euh, regroupement de benn yi ñooñu ñoo ñoom lañ daan dem ci ñoom ñu abal nuy oto ak personnes yi nga xam ne am nañ seeni oto te di ko joxe ci liggéey bi ngir jëmm yàlla ak jëmmi Serigne tubaa ñooñu ñu ngi leen koy fàttaliwaat bu baax a baax di fàttali bu baax nag euh, maire bi ñoo xam ne moom lañu ñu dénk dëkk bi te liggéey bi ku ne xam ne ne rëy na ndax yu baree ngi fi mbalit mi dafiy am ndox mi dafi am courant bi war a fu ne ñu war ko euh, leeral loolu kon ñoom ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg ci bopp euh, kuréel boobu ñu ngi leen di woo sëñ Abdou Ka ñu ngi koy fàttali bu baax ak ñi mu àndal ñëpp ñu maase jàpp ci loolu nga xam ni moom euh, seen warteef la di suñ warteef loolu itam ñu ngi leen koy fàttali bu baax ci turu kilifa yi lii seen warteef rek lépp luñ ci mën nañ ko def ndax mbalit mi jóge fi ndox mi jóge fi maanaam lépp rek suñ borom def ci tawfeex ba nu amee ko nu gën a kawe ci barke sëñ Touba euh, di ci fàttali itam waa Touba ci kanam ndax ñoom ku ne xam na ni liggéey kon sëñ Touba lañ kon kuréel boobu ñu bari teg nañ seen bët ci seen liggéey bi euh, ci wet yu ne nag euh, ndax nekkal nañ fi sëñ Touba kon ñoomit it ñu ngi leen di woo ci liggéey boobu te xam ne ndox mi ku ne gis na ni mel te màggal gi cib nawet la nekk mbale mi sax cib nawet la ne kon kenn ku nekk xam na ne ndox mu taa ngay bale kooku ku ne dana xam ne fo ay jumtuwaay mënu faa ñàkk ci luy tax mbedd yi am ndox ñu mën a fexe ba ndox ma dandu ba màggal gi nit ñi bu ñuy génn di circuler dem kenn du am lu la baare ci sa digganteeg fa ngay war a liggéeyee loolu itam ñu ngi koy fàttali waa Touba ci kanam ak mbalit mi it lépp ñu mën ci oto yu ko mën a roñ ñoom it ñu leen koy fàttali te xam ne daal noo ko bokk nañ ñun ñëpp noo bokk liggéey bi Cheikh Moustapha ñun ñëpp eh, noo bokk kon Touba ci kanam Euh, daanañ gis taxawaayam bu baax ba fii ne noo koy gis ba fii ne nii rek yëg nañ seen liggéey ci wet gu nag kon ñu ngi leen koy fàttali bu baax nag ci turu euh, sëñ bi nga xam ne mooy euh, sëñ Abibu moom Cheikh Mouhamadul Fadal kon ak mbooleem ñi ànd ak moom ci gannaaw liggéey boobu. bu ñu jógee foofu it ñu ñëw ci maam Issa Mbacke Ahlu Café mi nga xam ne moo jiite kuréel boobu moom itam gis nañ taxawaayam fii la daan ñëw ànd ak nun ànd ak mbooloo mi àndal mépp ñu ñëw taxaw ci mbooleem lu ñuy bale ak fu ñu duglu gox bu mën a jëm rek dana fa ànd ak nun ba mbale mi set wecc ba ñu àgg ci màggal gi jàmm kon moom itam ñu ngi ko ci soññ bu baax a baax euh, di ci soññ itam euh, kuréel bi nga xam ne mooy euh, ICS nga xam ne ñoom itam liggéey bu mag lañ am te saa bu ñëwee dañ jël liñ am lépp andi ko jébbale ko fii ci kuréel bi bañ ànd liggéey liggéey bi mu set wecc leen bëggoon lépp yàlla def ko ñu am ngërëmal sëriñ bi ci euh, euh, barkeb Cheikh Mouhamadou Moustapha am ko nag ci euh, turu sëñ Ahmadul Mokhtar kon loolu itam lu mat a ba jaajuwaat la wutaat ko te xam ne ngërëm yi moom du jeex mukk kon loolu itam ñi ngi koy fàttali bu baax a baax kuréel boobu di fàttali kuréel yi nekk ci dëkk bi yëpp te nekk di kuréelu bale nga xam ne fa saa bu ne bu ñu wootee rek ñoom danañ xam fi ñuy teg seen tànk ba ñëw ba wër Touba bu sañoon Touba géppee set waaye Daaru Xuddoos nag la ñuy jëkke ndax fi la ñuy woote mbooloo mi bis bi foofu lay tàmbalee kon foofu it dañuy wax ñu gën fee def itte ba ñu taxaw ci ñëpp ñëw buñ fi tàmbalee rek mu set nuy wër nag ba fu ñu mën a àgg ci luy setal rek ñu àgg foofu euh, di waxit nag ci biir euh, ñi dem fi ñoom di tonni seen i mbalit nañ ko teel a génnee nañ teel a génnee mbalit yi teg ko ci teg ko ci fi mu war a tege ba bu oto ñëwee mën koo jël euh, na mu ko na ko na ko war a jëlee jàppaar rek te xam ne euh, nawet la nu gën cee farlu nag teele ko ndax itam yàlla suturaal nu ci nag ba mu mën a set wecc te du am benn jafe-jafe euh, ñuy gën a euh, feddaliwaat itam sunu cant ak sunu fàttali muy seen Seex Lappe moom it ku ne daana ko gis muy ñëw fii ànd ak ñi war a àndal ñëpp taxaw tem ci gannaaw sëñ Seex Ndiaye ak sëñ Ousmane mi jiita liggéey bi ngir ñu taxaw def lépp loo xam ne jaadu na ci mu set ci kattanu ki nga xam ne moo yore adduna moo yore mbooloo murit yi muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha kon kooku itam euh, taxawaayam ak teewaayam day bari lu muy def ci mbooloom kon kooku ñu ngi koy bàyyi xel bu baax te di ko fàttali bis boobu euh, muy mbalem talaata mi euh, bu ko defee buñ ci àggee rek nun ko daan defee ci ak sellal ak rafetal ak taaral yàlla dimbali nu ci ba loolu mën a sottee noonu. mbale moomu nag loolu mooy sabab bi kon ñoo ngi ciy woo. fas yéene ànd ak ñi nga xamante bi ñoom lañ ko baaxoo àndal ñëpp tàmbalee ko ci waa kër cheikh maam cheikh Ibrahima Fall ci njiital sëriñ Amdi Fall Modou Mbenda di ci woo sëriñ cheikh Ndigal Fall moom itam di jàmbaar ci kër gi di doom ci sëriñ cheikh Fall Baye góor ñëpp xam ko ci ëtt bi tedd bii di ci woo itam waa Daaru Ndiaye waa ko sëriñ Daaru Assane Ndiaye ñoom itam ñu ngi leen ci woo. di fas ko yéen ànd ak ñoom nañ ko baaxee ànd ak ñoom ñoom ngi leen ci soññi ñoo ngi ci woo itam mbooleem jëwriñu seex yi jaare ko ci sëriñ Mbacke Gueye ngàcc ak mboolem seex si nga xam ñoo ay ci ëttub Daaru Doos bépp ñoo ngi ci woo soxna Maam Boussa Mbacke moom Serigne Abdou Aziz waaye ñoo ngi ci woo itam soxna Maam Issa Mbacke ahlu café ginnaaw loolu ñu ci woo autorité yi nga xam ni ñoom la ñu seqal dëkk bi ca ñu ngi ca ñuy ñun ak ñoom mun ñoo taxalikoo ndax lépp lu war ci citoyen yi ñoom ñooy ñi nga xam ni ñoom lañ ko àndal ku ci mel ni waa ONAS xam ngeen ni màggal gi dafa tombeek nawet daana ci digg nawet bi jafe-jafe yi nga xam ni mi ngi am ci mbedd yi ci taataa yi waaye jafe-jafe yi nga xam itam nit ñi am nañ ko ci wàllum ndox ak fi fi ci digg dëkk bi fi jamono ji toll nii ak napp bi yooyu yëpp non ngi ciy waa ONAS ñu jàppale ñu ci ndax mbedd yi dafa bari napp te bu tawee napp bi day yeewu kon nag ONAS noo ko ci soññ bu baax a baax waa service de jeunes xam nañ ci seen wàll xam nañ ci seen cër waaye sapeur pompier nañu teel a ñëw ndax jafe-jafe yi nga xamante bi ni màggal gi da koy am ci ay xat-xat ak fitna yi nga xamante bi dana ci am ak wàccaayu ni ko wootee bëgg na ñoom te ñu ñëw euh, ba mu jàll waaye li nga xam ne moo gën a ñor mooy mbale mi ñoo ngi ci soññ waa UGC kuréel la goo xam ni seen taxawaay ak seenu jàpp ci mbaleem Touba ak seetal Touba ñun ñëpp xam nañ ko rawatina ëtt bi di daaru xudóos kon UGG ñu ngi lay woo ci ndigal si amul mutar ak seen Cheikh Ndiaye mi ak seen Abdou Lahad Ali mi nga xamante bi ni ñoo jiite liggéey bi waaye ñu ngi woo itam mbooleem koo xamante bi ni da ngaa bokk ci ñi nga xam ni daanañu indi ay matériel wala ay bagage yu jëm ci lu mën a jàpp ci mbale mi ñoo ngi la ci woo di la soññi ci xam ne bis bi bisub sëñ Tuubaa bis bi bisub jullit yi la waaye bis bi bisub taalibe yépp la ku lu ci waay def boppam la ko defal ndax nañ leen koy xawoon rek bis bi moom buñ ci àggee fépp foo xamante bii ni nit jàpp na ni nit toogu fa rek na jàpp ni malaayika toog na fa wala kenn ci waa ñi nga xam ne ñoo gunge woon sëriñ bi kon moo tax ñu bëgg fépp set mbedd yi ñoo ngi ñaan jullit yi ñoo ngi ñaan taalibe Sëriñ Tuubaa yi képp ku tegan ay bagage yu mu mën a doon na ko teel a àndale yaatal oto yi ndax newet la ndax jàdd-jàddaan yi ak xat-xataa ak ak ak ak ak ak taataa yi jàdd-jàdd yi su baree rek oto yi mën naa indi ay foncé ca mën naa indi ay jafe-jafe kon ñoo ngi ñaan ku amoon ay jali suuf wala ay xeer wala ay bant wala lu mu a doon na ko àndale ci mbedd yi ba mbedd yi set wicci nit ñi mën a ci jàmm dellu ci jàmm bisum mbale mi nag talaata le premier fas na nu yéene bu nu xëyee lépp luy mbale ci dëkk bi fas nañ yéene génn ko yóbbu ko fa nga xamante fa lañ ko baaxoo yóbbu waaye li ñuy ñaan itam mooy altine képp ku am mbalit ak fu mbalit ma ne na ñu dimbalee jigéel ko beggandil ko ba bu oto yi egsee rek man ko caa teg te ñi ngi ñaan itam képp ku oto bi raw nga def yitte ci fexe ba dab leen bañ ko bàyyiwaat foofa ngir bu leen ko oto bi xasee romb bañ bàyyi fa mbalit ma mbalit moom mën na faa nekk ba maal gi jàll ci oto doo fa jaaraat te loolu day mel ni dañoo bale ba pare di taxalaat kon nag képp ku yéex a génn sa mbalit ba otoy romb la na nga def pas-pas def yitte jaayanteeg sëñ tuba boo wutub sare di ko teg sax nga teg ko ca ba fekk fa oto yi nekk nga teg ko ca loolu daal lañ doon soññee wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu